Allora, um, kontaan xam sa école bi loo loo ci soxla ak il mediatore o la mediatrice dina la jàppale pour nga mën jàng bu baax si sa ne il coordinatore o la coordinatrice ñoom tam dinañ la jàppale pour nga mën a jàng bu baax il la docente di di sostegno di lingua ak moom tam dina la jàppale tam bi nga mën a jàng bu baax kenn mi ngi tudd Laura Laurelli <laughs> alors soo bëggee soo bëggee affrontale sa journata bu baax dangay kii dangay <clears throat> daale loo lekk tam ndax ndax journée bi dina dul trop te dina metti ci yow bul fàtte tam di kii tam di indaale sa kii sa kaye pour pour nga xam ne di bind kii lu sa prof ah, ah, am ne tam benn site boo xam ne Nouvala Nouvala moom la tudd soo duggee ci Nouvala bi di gis di gis euh, say say say kóolute ak say ak say récent moom itam sa sa sa note bu baax soo bëggee jël sa sa kii euh, numéro bi dangay dem si secrétaire bi ñoom itam dina jàppale pour kii nii pour kii pour ñëw jàppale la tam si sa jàng bi li ma la wax nii dinga ko trop pour sa école bi ciao.